ca tribunalum Ndakaaru tëj nañu ko lu toll te ñaari weeri kaso yéen kaay gi dale si ko xëy ci coronavirus beek ñi nga xam ne solo na leen loola yéen kaay gi nee na ñi yëngatu ci lu jëm ci wàllum jënd meeg njaay ne mu commerce ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci hôtel yi ak wàllum restauration yéen kaay gi de la tribune nee na neexul ba neexul waaye nag Sénégal jamono ji crise bu rëy moo am ci Sénégal bu passé coronavirus bi nga xam ne mooy lëmbaaji réew meek variant delta bi nga xam ne li muy rey ci réew mi bëri na économie réewum Sénégal jamono ji dafa nërmeelu ak lu jëm ci wàllum dus dossier politique yi ak lu soxal wàllum mbay mi yéen kaay gi nee lii lépp mbir la yoo xamante ne yu am ay jafe-jafe la journal bi di Source A nee na bu weesoo coronavirus bi nga xamante ni jamono ji ma ngi def njombe ci réew mi ci marché bi bëri na ay njëg yoo xam ne dafa yokk ba maara day taal lu si mel ni ceeb bi ceeb bi dafa yokku diwlin ki dafa yokk suukar si dafa yokku am na leneen ak leneen loo xam ne maanaam yokk na ci marché bi yéen kaay gi di Le Quotidien ñu xëy fekk fa Seydou Gueye nee na docteur Babacar Niang tuuma yi nga xam ne gàll na ko ci ndodul Abdoulaye Diouf Sarr garaaw na génn xeetu garaaw garaaw goo xam ne mbir mi dañu ko war a leeral la yéen a kaay gi di réew mi quotidien Assane Samb xëy jël xalimama nee na docteur Babacar ñaa lii nga xamante ni wax na ko maanaam mbir la yoo xamante ni dañu ko war a lijjanti te procureur Serigne Bassirou Gueye maanaam mbir mi nag dafa war a dem ba sa cëppaandaw ga maanaam dem ba jeexa ngir nag Sénégal yi xam mbir mi ana nan la demee te lii nga xam ne docteur Babacar ñaa wax na ko su dee dëgg la maanaam nag ñii nga xamante ni ñoo ko def mën nañu leen a toppe ñu sàcc ñu escroquerie ñu détourné yéen a kaay gi di la Soleil xëy di ñu xibaar ak di ñu faram-fàccee la yi nga xam ne moo jëm ci wàllum covid 19 ana lan lañ ci war a xam yéenekaay gi ne na soo ñàkkoo day tax li nga xam ne mooy cas grave maanaam doo ko am soo ñàkkoo ba pare coronavirus bi dal mbir mi daal du garaaw journal bi tamit nee na li nga xam ne mooy ñaari dose maanaam ñaari vaccin yu bokkul loolee dañu koy tere journal bi xëy na ci coronavirus bi jàbaa jóngi ci réew meek université yi nga xam ne yëngu na ndax université bu Bambey journal bi nee na étudiants yi mer nañu loola ak université bu Gaston Berger étudiants yi nga xam ne ñoo fa nekk ñoom nag la nga xam ne moom la ñuy sàkku mooy nee ñu matukaay yi nga xam ne moom la ñu war a jël ci aaru ci coronavirus bi amul lenn loo xam ne jël nañu ko sa yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na étudiants yi nga xam ne ñoo nekk université Alioune Diop ca Bambey démb wàccoon nañu ci mbedd mi jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi doon ko ñàkkante ak ñooma grève illimité sans ticket loole la étudiants yi décrété ndax la nga xam ne moo ko waral ñoom nee nañu ay jafe-jafe neen la ñuy dund te jafe-jafe yooyu dañoo bëgg mu daal di dakk yéene kaay gi di Vox Populi ak le témoin xëy duñu xibaar naan ñu Aliou Badara Cissé médiateur de la la république wàllam jeex na aw te yéen a kaay gi ne na juge Demba Kandji jamono ji moom la ñu fas yéene def médiateur de la république journal bi xëy xibara xibaar ñu nag ki nga xam ne mooy Aliou Badara Cissé ndax yàlla mu jël nag li nga xam ne mooy desem amee ëllëgëm ci wàllum politique Walf Fadjri xëy na di ko càmbar naan Aliou Badara Cissé lan mooy avenir am ci wàllum politique yéen a gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu étudiant bi nga xam ne moo solo woon col ko jigéen ngir nag defal ab gelam examen ca diwaanu Diourbel journal bi nee na moom ak gelam système bi àtte leen ni ki démb ca tribunalub Diourbel juróom-ñaari fan la ñu leen tëj yéenekaay gi di Rewmi Quotidien nee na mbir mi nag li nga xam ne moo si gën a xorom mu gën see reetaanlu muy xale bu jigéen bi si ab auberge la demoon doon xaar waa ji yéenekaay gi de la témoin nee na tricherie wàllum tricherie sport national ci Sénégal ndax bu passé élèves ak étudiants yi nga xam ne ñoo yëngatu ci lu jëm ci wàllum tricherie fraude gi bëri lool ci Sénégal wax ne dafa am benn féticheur bu ko rey journal bi nee na Amidou Sidibé lay wuyoo ak Awa Sow xaritu Lobé Ndiaye ak taximan bi journal bi nee na ñett ñi ñëpp dañu leen di toppee topp ku rey nit journal bi xëy na nag ci enquête bi nga xam ne gars yi def nañu ko si nee nañu ñett ñi daal ginnaaw nag bi ñu reyee ki nga xam ne mooy Lobé Ndiaye jël ko sànni ko jam ñaajo ñoom dañoo demoon Almadi maanaam doon fa noos doon fa feetu doon fa gundaandaat a kaay gi di l'Observateur nee na lu jëm ci wàllum yi ngi def lu dara jërul ci réew mi am na si ñu bari ñoo xam ne ay jigéen bu ñu demee dañu leen di tëddee dañu leen di tëddee am na si ñoo xam ne dañu leen di nax jël seen xaalis bu weex tàll am na si ñoo xam ne nag dañu leen di rey comme ni nga xam ne nag moom la ñu def lobbe njaay yéene kaay gi di Dakar Times xëy wax ci lu jëm ci fédération sénégalaise bu football journal bi ne na Augustin Senghor dégage Augustin Senghor doy na sëkk yéene kaay gi nee na am na nag lenn loo xam ne benn bindkat doon na ko wax nee na on ne change pas léegi ana lan la fi Augustin Senghor gagné dara journal bi nee na jamono ji nag Augustin Senghor ci boppam dafa war a bàyyi footballu Sénégal yéen kaay gi di sunu lamb ñu xëy fekk fa Bira Sène mi nga xam ne moo seen CNG moom nag nee na ngir lamb amaat pass sanitaire maanaam ñëppay ñàkku mbër yi dinañu ñàkku supporters yi danañu ñàkku entraîneurs yi ñàkku ñëpp ñàkku ngir lamb ci mën a ubbiwaat. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen